solo ñu leen di andiwaat ndax jàng ci ñoom lu am solo la euh, macha allah ngay def rubrique bu am solo ma bàyyi la nga yaatal ak sa invité. waaw oh, Fabel comme ni ñu ko waxee sànq mhm. euh, si rubrique yooyu waaye ñu war a waxtaanee tey ci Serigne Abdou Gadiaga. Mhm. bu ñu waxee Gadiaga xel day mhm. dem si Gadiaga di dëkk boobu. Euh, donc comme ni ñu ko introduire sànq ak suñu invité di Pape Aline Gadiaga di ni koy waxee Good Mara Good Mara bi fa la jógee. <laughs> Good Mara moom mi ko déggee Good Mara. waaw waaw waaw Mara dégg naa ko de mais gudd Mara moom maa man rek la mooy sëriñ bu baax mais nag su ma ko bëggee firi fii ci Sénégal gudd Mara mooy sëriñ boo xamante ni nii dafa teg baa baayam jaar fa mu daan jaar waaw kay man sama gudd maaraam boobu la bu dee ca Italie nag lañ ma ko tuddee <laughs> ndax booba dama fa nekkoon <laughs> ah. waaye comme xam naa boo demee du ma jàmbaar lool ah. ñi ma dëkkaloon ku ñuy ah. wax Ablaay Ba mm-hmm. mu jikki-jikki nag kii daal gudd maaraa la rek moom bu xëyee rek day sañse <laughs> même buy jaay du du changé li muy sañse mut maara ji ak sama benn rak bu ñu wax as gajaga mm-hmm. ñoo ma tudde tur woowu mut maara fa la jógee tubaab yi di ko wax ñu di ko Sénégal sax waaw mais nag Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin moom ci boppam itam toog na bis ba yàgg mu ne waa luy gut maara mm-hmm. man ko Serigne Serigne bi mu ne xaa ma ne ko gut maara mooy Serigne bu am fulla bu la sopp yow waaw man ko boo mm-hmm. koy gut maara ba tëdd macha allah ci Papa Aline Gadiaga Mara ñu sa maam la ku ñu waxtaanee. waaw sama maam sama baay. ñëpp Serigne Abdou mhm. Gadiaga. waaw mooy sama waajur. Mhm. loolu ñu mën a wax ci Serigne Abdou Gadiaga. waaw kay xalif dëgg la waaw dëgg la. Mhm. waaw ni mu ko waxee rek Serigne Abdou Gadiaga mooy ñetteelu xalifa bu Serigne Ali Gadiaga bi ñu ma tuddee. maam Aliou. ñoo bokk turandoo. sëriñ Aliou Gadiaga boobu nag moom mu xaddam Seydil Hadji Malick la boo xam ni yàlla moo ko boole woon ak Seydil mu wóolu ko lool nag waaye ñu am lu leen boole rëla leen muy jagsaaw jagsaaw boobu mhm. mbay ma mhm. ca la daan dem di ko fekki ba mujj mooy jiite Seydil Hadj Malick julli juróom yi mhm. ci li gën a siiw la bokk mhm. ba waa Tiwaawan yi sax dañ ñuy wax léeg-léeg fu ñu gis mhm. dañuy barkeeloo ko sant Gajaga ci famille boobu pour ñu jiite jak saaw googu nag fa la maam Seydi Gajaga daan dem di fa fekk Seydil Hadj Malick ba mu wëllërante fa ak moom jox ko fa ndigalu gàmm gi nga xam ne moom la ñu jub si bi mu fi jógee beneen doomam bu am solo bu ñu wax Seydil Hadj Gajaga mu tudde ko Seydil Hadj Malick moom itam moo ko wut nekk xalifaam mottali liggéey bi ci mottalin wu yéeme wu rafet mm-hmm. am na beneen rakkam bu ci topp nag bu ñuy wax Serigne Tidiane Gadiaga moom itam mu tudde ko Cheikh Ahmada Tijani mm-hmm. ndax sopp tarixa bi mottali ko nag moom itam gën koo yaatal ci façon boo xamante ni yàlla mayoon ko xam-xam loolu itam mm-hmm. ca dëkk ba di Ngadiaga kooku nag bi mu fa jógee la su suñu waajur remplacé ko mais suñu jur nag euh, yàlla dogal na ñu ñëpp ku ci nekk def nga fa benn temps mais moom moo fa ëpp lu mu def ndax def na trente trente trois ans ci xilaafa gi 33 ans ku ko def tey mhm. mag mhm. te bi nga fi jógee nga am 92 ans di nga mhm. marqué 7 ans euh, surtout su fekkee ni yàlla dogal na nag nga nekk li ko Faat juuf ak Fabel tudde di nekk nitu royukaay dina bari lu la marqué sëñ Abdou Gadiaga moomu nag moo nekk troisième xalifa Serigne Ali Gadiaga euh, di borom dëkku Gadiaga sanc Gadiaga tudde ko santam itam ñun ñii ñu dëkk fa di suñu cosaan ñu yaroon nag Tiwaawan ci loxo Seydi Abdoul Aziz Sy Amin euh, moo ñu yar fa la ñu nekk itam nit du bàyyi cosaanam ñu dundal cosaan la ndax gàmm yi di xew euh, moo waral itam gàmm gi am le huit ñu war a waxtaanee ci kanam sax wax tamit euh, ci bu ñu ko waxee ngajaga fan la nekk parce que fii am na Dakar Ngadiaga waaw Malika yooyu waaw Malika ñooñu benn famille lañ am nañ ci mm-hmm. benn famille Ngadiaga bi ma bokk mm-hmm. famille bu yaatu lañu mm-hmm. ndax am na Ngadiaga ndoob Ngadiaga lañ mooy sunu cosaan ca ndoob am na waaw ndoob am na dingiraay Ngadiaga bu Serigne Makhtar Ngadiaga ñoom ci famille boobu lañ bokk ndoob la ñu jógee am na Ngadiaga kër mbir ndaw fii ci nooto guy jama ñoom itam benn famille boobu noo bokk benn famille. Mhm. ñoo ci jóge nag ñëw fii ci am na ci ñu ci nekk fii ci dakaar te sant mhm. Gadiaga ñu bari am naa ci sama waajur wi fii gën a gën a sax fii ne fii ñu koy wax mhm. Baye Ousmane Gadiaga fi la nekk ak famille am fi kër itam euh, ñu benn famille bi la Gadiaga yi nag yaatu na ndax am na ci léeg-léeg ñu ni Gadiaga bii lawbe la wala bii sëriñ ma ni man daal xaw ma bii sëriñ mais ñun daal ci bi gën a baax lan bokk ah, <laughs> waaw ñun daal bu ah, fekkee lawbeet léeg-léeg ma tooñ nit ni leen même bu dee lawbe la noonu ma ni may bi ñu ci bokk nag mooy bi famille sëriñ boo xamante ni mhm. cosaanu tukkulóor ak saraxule la mhm. tabaarakallaahu nekk ca commune u Mérina Dakhar nag mhm. département Tivaouane région Thiès. deux kilomètres la digganteem ak na Médina Ndakar. na Ndakar ak Ngaay Mexe. neuf kilomètres mooy seen diggante. foofu la Ngadiaga si woo. sunu maam jooju nag. Serigne Ngadiaga bi nga xam ne moo sanc foofu. moo delluwaat ñëw sancaat ko fekk ca sanc yu njëkk yi dañ ma ni ci ren jii mi ngi toll ci juróom benn téeméeri at. ak ñi ak juróom fukk ak ñett. ci bi ñu sancee Ngadiaga googu mais raafoon na ba kenn dëkkatu fa. mais bi sama maam ñëwee nag ci téeméeri at yi ak lu topp moo ko dekkalaat. ci arab lislaam leen na Dakar mhm. Mhm. muy dëkku royukaay nag boo xam ni tabaarakallaahu la ko wër yëpp mhm. ñoo leen nandal ci naasiril xaq bil xaqi nandal leen ci diiney lislaam nag ak boole ñëpp euh, foofu nag mooy Ngadiaga kiñ ciy bëgg a waxtaane nag ni Serigne Abdou Ngadiaga moom ni suñu way jur faat si si Abdou Gadiaga moom la ñuy wax euh, sëñ Aliou ñuy wax si moom mu nee presque trente ans mu def ko ci xilaafa mm-hmm. donc muy koo xamante ne kon ràññee nañ ko ci wàllu diina mm-hmm. lan lañ jot a gën a lan moo gën a fës wala ban jàngale lañ jot mën a am euh, ci euh, wax durant li nga mm-hmm. xamante ne def na ko ci xilaafa ba waaw li mu ci def ci xilaafa gi mooy yàlla def ko indi fekk mu nekk ay jamono yoo xam ni dafay xat xam nga bu njëkk nit ñi niñ doon duggante mhm. eh, dañ doon wujjalante daanaka yi ci ay tariixa mhm. dañ doon wujjalante ci ay ay ay famille mhm. xeebaate yi daana am yu bëri dina am mais moom ci xam-xamam ak ñawam bi mu egsee te xam yàlla eh, xam ni nit ñëpp benn lañu même famille bu mu mën a doon kenn gënul kenn inna akramakum inda allahi atqaakum waaw ki gën mooy ki gën a ragal yàlla moom yàlla daf ko may loolu nag mu wàcc nag képp ku ñu yëg ni kii ku ñu daan xeeb la moom mu fexe ba kenn xeebatuloo wala yow moom bu nekkee dañ koo naw yow mm-hmm. moom lay tax mu wàcc moo koy njëkk a def mm-hmm. ñëw ci yow maa ngi lay wax léegi nii am na lu gën lu yéeme woon nga xam ni bu njëkk dañ daan wax euh, coowul diggante murit ak tijaan li gën a marqué tund wa ci ñu ñu sopp ko mm-hmm. nga xam ni amu fa frontière ci la bokk ba am ay histoire yoo xam ni da daan am ci diggante xaj na sax murit ak tijaan mais dafa xëy ni daf koy dindi jubboowuñu dëkk bi côté bii murid la côté bii tijaan mais kenn dootu dem leen te kenn dootu tudd sa bopp moom mu xëy rek ni na ko dindi mm-hmm. mu ni nan la koy dindee mooy boutique bi fi nekk tey boutique bu mag ci dëkk bi mm-hmm. ñi ko moom ay murid lañ ñoom ñi fi nekk di di ay tijaan ku bëgg a jënd ci beneen dëkk ngay dem jënd ji fa wala nga dem ngaay jëndi fa mm-hmm. mu xëy ni mbokk mi mu am yépp man de duutuma fi bàyyi boutique bii di jënd ji feneen yónniwul doomam yónniwul mag yónniwul keneen moom lañ waaxu nit ñëpp di ko séen kenn ñi mewul woon def bu dem ba ca bitig ba jënd fa almet jënd fa sonde mhm. ñibbi si ku ne ku ne di ko séen ca ëllëg sa mu delluwaat dem di jënd ñëpp roy ko ca mu dellu ba ci ka nga xamante ni moo fa nekk wax ko ni ko xam na li mu boole mooy yàlla ak yonante bi moo ëpp doole ay tarixa bi waaw moo ëpp doole ay tarixa te tarixa diine mooy li ko jiite te diine jooju bu fekkee ni jagul tarixa mënul jag kon nan fexe ba jagal suñu diine ci mbokkoo te mbokkoo ak l'islam moo ëpp doole fuuf yii ñuy def bu nu fexe ba suñu diine ji rafet nag suñu dëkkaliin mën a rafet mm-hmm. ci la nu ñëpp di mën a nawe mm-hmm. tund wépp dégg ko nag ñëpp apprécier loolu mm-hmm. kun ndaw ñëw di ko ci ndokkeel ñi joxante loxo ñi bëggante waat frontières yi doon am ak kuni yëpp ñëpp dagg ko loolu nag marqué leen marqué boo xam ni kenn ku ne jël ko euh, mi ngi ci ay turandoo lu ëpp cinquante personnes yoo xam ne dañ ko ko tudde moom sëñ Abdou mm-hmm. ay magam ñëpp moo leen fa ëpp loolu ku ne mm-hmm. na ko doom ba bisu mm-hmm. tey ngi faatu 2015 la noppaloo mais ba léegi ñi ngi jóg di ko tudde ay doom mu marqué nit ñi nag defe naa boo ko séenee moo nekk nii ci écran bi ci image yi di julli gi mu mujj julli ci korite gi tabaski ga topp ca mais bi korite ga la man maa taxaw nii booba amatul doole bu defee julli gi rek maa koy jàngal xutba xutba bi waaw mais mu marqué nit ñi ba buñ la nettali woon ni mu melan mm-hmm. ci ci wàllu wayaf mm-hmm. ci wàllu mbaax mm-hmm. amul kenn koo xam ne li mu yor ci loxoom di nga ko fa ñëw fekk ko soxla ko te ñëwul demul jox la ko wallaay lépp loo xam ne da ko dégg ca tundoo nag léegi muy murit bi la wala xaadir bi la wala tijaan bi la mhm. du ci xaar kenn buñ ne mhm. problème am fenn rek mhm. war na fasam dem fa régler ko ba mu jekk mu dellu siwaat ñëw toog kooku nag di suñu wayjur woowu nag tabaarakallaahu dafa jikko ju ju ju wàcc jooju nga xam ne yonent moo wax ni man tawaa tawaadaa rafaahu llah ku ñëw wàcc sa bopp yàlla yëkkati la ba ñëpp seen la loolu ci moom lañ ko gëmee mu nekk koo xamante ni nag ràmbale moo doonoon biram nag ak di ko digle nit yëpp sopp ko ci wàllu ñaan bu ñu ñëwee kuy ñaan day wax ni ñaan kat bi ci gën a gàtt moo di yaa xam li nga bëgg ci soxoon na la ko yàlla defal allahu akbar mu ni kooku doy na ci ñaan loo loo def lii wala wax ni wala nangam li nga bëgg ci sa xol daal xam nga ko yàlla na la ko yàlla defal jaan jëf ci ay discours am bu ñu dajee nit ñi mu bëgg nit ñi ci boppam mm-hmm. bëggante ba a mm-hmm. soppante mu ni man du Abdou Gadiaga day mm-hmm. xaw ma am naa noonam ndit mais man noonu kenn man daal wóor na ma ni man du ma noonu kenn man mhm. Mhm. mais nag man xaw ma am naa noonu ba ma ko amee tam xaw ma ko mhm. waaye man du ma noonu kenn tey dinaa dénk yéen nit ñi kenn ku ne def ku nekk ni sa bopp kenn ku ne bu defee nit ki ni boppam mhm. defe naa ne toujours nit ki sa bopp ngay gis ci bopp mhm. mu nekk ay discours yu boole nit ñi yoo xamante ni dafa marqué ci tund wa mhm. moo tax euh, ñi ko jiitu di ay waajuram ak ñoom ñëpp ku ne liggéey nga li nga war a liggéey ci lu baax ku ne def nga li nga war a def lépp ci lu baax mais moom nag moo gën a marqué ndax du fi jóg ba léegi ndax la yonent bi waxoon rek sallallahu alayhi wa sallam su ngeen faatoo te jóge fi eh, bàyyi fi doom ju baax jógewu leen waaw bu ngeen fi bàyyee eh, sarax bu baax daan def jógewu fi mhm. xam-xam bu ngeen doon jox nit ñu koy jàngale mhm. dina mel ni jógewuñ mhm. ndax loolu lépp lu ñu ci laal rek mu nekk promotion ci yow fekk la ci sa biir bàmmeel ñi nga tëddandool ñëpp tabaarakallaahu nga sédda leen ci muy aw la yàlla def ci moom nag ba may ko ca dëkk ba tam nag tey gàmm goo ko Seydi Hadji Malick joxoon dafa am leneen lu mu am nag loo xam ne ay magam amu koon mooy dafa am takku saanu Serigne Abdou Gadiaga ci suuf ci biir gàmm gi mbokki taalibe yi murid tiijaan xaadim ñoo ba yàgg ñu ni dañ koy ziar si ci bisu gàmmu gi di def délégation bu mag ci bi mhm. bu ñëwee di ko ziar si mhm. di ko ziar si boobu nag ci la leen di digal li mu leen di waxal loxtaanal ba pare doo nga mhm. dem ci cérémonie officielle bi tàkkusaan boobu <laughs> yaa ngi dugg dee si ci mais nañ ci continuer léegi kañ kañ lañ tàmbale gàmmu boobu ngeen xamante ne moom ngeen war a amal ci samedi bi ñu ngi ko commencé Seydil Hadji Malick mi ngi ko jox Serigne Gadiaga 1912 1912 la ko commencé gàmmu ci Gadiaga euh, di ko gàmmoonte ak moom ba ñoom ñaar ñu bokk jóg bi Serigne Babacar si téye ko mhm. di fa yabal ay nit ñu koy ñëw gàmm si mhm. di fa yabal mbay ndonda ak Serigne Abdoul Aziz Al Amin mhm. Serigne Amin nee na ma ci làmmiñam am naa cinquante ans yoo xam ne amul benn at bu ma ràmpal bu ma bu ma manqué gajeg lépp tege ci loxoom ñu di ko gàmmu ba bisu tey jii gàmmu gaa ngi dox lépp ngi tege ni mu war a tege tey jii nag euh, moom xam nga rek tabaarakallaahu dañuy wax ni ñi nekk ci biir suuf te dem ñoo ëpp ñuy dund ci kaw ñii fa tabaxalan loolu ñëpp di Serigne Babacar si Seydil Hadji Malick Serigne Gadiaga Serigne Tidiane Serigne Alaaji ñépp dem nañu mhm. Serigne Abdou tam dem nañu mhm. tey jii nag Serigne Abdoul mi nga xam ne moo yore woon loolu ci loxoom mhm. ki fi nekk tey yore ko ci loxoom it di ko taxawee wala muy yabal ku ko neex yàlla dogal na bi mu fi jógee léegi yab léegu fa muy Serigne Pape Malick Sy di xalifa Serigne Babacar Sy ñëw di ko taxawee Serigne Gadiaga nag yàlla mayoon na ko moom njabootu Seydil Hadji Malick gépp la am leen tam moom la soppoon waaye nag bi mu fi jógee tam nag ñi ci ëpp itam dem jokk ci Serigne Babacar Sy muy sunu Serigne mooy suñu wasila bi suñu lépp na mm-hmm. tabaarakallaahu kon mm-hmm. sëriñ Pape Malick moom mm-hmm. tey mooy kilifa kër ga di ko taxawe waaye tàkkusaan gii nag yàlla may na ma ci man maa ko taxawe cërale ko woon Sidi Ahmed si bu maam Abdoul Aziz ak famille Seydil Hadj Malick yëpp ndax damay faral di wax ni mm, sëriñ Abdou Gadiaga moom amul frontière ci kër Seydil Hadji Malick kër gum fa dugg rek bu ko neexee am fa représentant mm-hmm. Mm-hmm. daana def bu ñëwee zawiya Seydil Babacar si jàkka ji buñ ko xasee seen rek dañ naan moo koy jiite mm-hmm. muy faral di wax ni man nag kër gi du ma fi am fu ma dugg fu ma dul génn fu ko mës a neex dugg mag ñi réerowuñu léegi la sëñ Pape Malick si <laughs> mooy sëriñ bi dëgg la mooy sunu sëriñ tabarakallah kooku nag Fatou mu mu muy kilifa kër ga léegi suñu wasila nag di Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin man nag bi mu fi jógee ak avant avant mu fi jógee vingt ans avant mu fi jógee yàlla dafa dogal mu boole ma ak doomam di ñuy wax Serigne Moustapha Sy Serigne Moustapha moom nag mooy sama Serigne mooy sama wasila mhm. ñun ñaar ñëpp nag lu bokk ànd def kilifa Serigne Pape Malick Sy dafa may mm. faral di dégg di wax ne Serigne Pape Malick Sy digal li ma doon jëlee ci sama wayjur mm-hmm. laay déglu ci moom du ma ko fakkatal du ma def loo xamante ni loolu neexu ko yéen ñi ma gis te ànd ak yéen itam mm-hmm. nan fexe bay déglu ndigalu Serigne Pape Malick Sy ndax mooy Serigne Abdoul Aziz moo fi Serigne Cheikh Ahmed Tidiane mm-hmm. Serigne Moustapha moomu nag man itam mooy sama Serigne nag di sama wasila kon mooy suñu Serigne man nag yow di sama wasila <laughs> euh, tabaarakallah mais tàkkusaan nga nag dañ koo libéraliser la ñuy wax ku ne am na fa cër. Eh, macha allah ginnaaw tàkkusaan ba tamit lan ngeen a prévoir ci bés mhm. boobu. waaw tàkk moom nag ci sëñ Abdou Gadiaga ci xalaatam bu rafet. Mhm. daawul am bi mu ñëwee la wax ni. Mhm. nañuy wax ustaas yi mhm. ak ku mel ni ñoom imam mhm. bu yoor yoor jotee nañu dajale jàng luñ mën a jàng ci kaamil mhm. moom nag dafa modeste daf daan wax ni ñaan gu gudd wala ñaan gu bari déedéet jëru ko ko ah, mu naan wax naan fanweeri kaamil ak ñeenti kaamil ko rek li <laughs> mu ni ah. la ci sawar benn ah. bi rek buñ ko doon jàng rek te yàlla nangu ko rek itam déggoon jamono déggoon waaw mu ngi noonu xam nga ne ni ak ni yàkkamtee ak ñu bëri ay problème moo tax mu ñëwee dañuy ah. jàng benn kaamil wala léegi ñu jàng sax ñett mhm. ñu jël ay dog ci salaatul fatiha ci yoor yoor gi mhm. ñaanal ci dëkk ba mhm. ñaanal ci réew ma wax nit ñi tëm ñi fiy ñëw ñëpp ku ci ne luy sa aajo ñu ñaanal la ko ci yoor yoor yoor yoor go nag bu jeexee ñu préparé wu nag defar ay añ yoo xam ni mboolem àdduna bi ñëw dañu fay añ gàmmu googu faatu gàmm gu mag la du gàmmu gu ndaw bu jeexee nag ñu préparé wu takkusaanu sëriñ Abdou Gadiaga nag takkusaan ga noo googu nag mooy mbir mi nag moo yéeme. Mm-hmm. ba tax na sax boo xefan. Mm-hmm. bu nu bu nu ci bu nu réewul woon tuuti suñu xel xool rek. Mm-hmm. ak suñu xel. mën naa nangu gàmmu gi ndax cofeel gi nit ñi am sëñ Abdou Gadiaga ndax tudde nañ ko ba pare. di ko defal nag ca biir këram. du penc mi ndax penc mi dañ fa baas pour gàmmu gi. mais tàkkusaan gi ci biir këram lañ koy defal. te biir kër gi. yàlla yaatalan na këram ba li mën a ne ci biir kër gi ci mbooloo. du nekk sax ci penc mi ci mboq mi tàkkusaan googu nag lañ ko mm-hmm. fay defal mm-hmm. autorité yi ci àdduna bi yëpp di ñëw di ñu fa fekk si mm-hmm. di ko ñëw di teewee eh, marraine bi di soxna euh, Cheikh Ahmed Tidiane ba caisse de dépôt directeur caisse de dépôt Cheikh Ahmed Tidiane moom ak di invité d'honneur bi ak Ablaye Dia directeur général u Sénico ak Moustapha Dia opérateur économique ak président groupe parlementaire ay meeru ñing ak euh, Makhtar Ndiaye Amin juróom yi lañ def invité d'honneur yi nga xam ne tàkkusaan nga ñoom seen mbir la te du ren rek mm. daanaka bi ñu leen ko xasee tuddee léegi rek changé waatuñu ko sax mm. marraine bi sax dafay wax ni man tey laa mas a dégge marraine à vie ah ndax dañ ko tuddee bi góor gi dund ah. lañ ko ko tuddee moom mu ngi fi mm-hmm. Mm-hmm. ma tuddee ko ko mm-hmm. mu ni ah ñu ni ko tuddee nañ la ko mais à vie lii maa ngi koy doog a dégg macha allah kon nag bu paree tam dañuy préparer reer yi ca guddi ga nag ñu jóg ñëpp dem seeti teeru Serigne Pape Malick si ca pénc ma xaar ko mu defal nu lay magam daan def mhm. damay faral di wax ni Fat yu Faye mhm, mhm. Fabel Serigne Pape Malick si mun ma bañ a wax ci moom uh-huh. damay wax ni nit ñi war nañ koo bëgg ndax ñeent muy ban ak ban bi ci njëkk mm. war nañ koo bëgg mm. ngir Serigne Babacar Sy mi ko sopp ba tudd ko Seydil Hadji Malick ak cofeel gu mag mhm. Mhm. war nañ koo bëgg ngir cofeel gi Cheikh Ahmed tijaan Sy Al Maktoum mhm. amoon ci moom ba ni daanakay mooy taawam mais war nañ koo bëggit ci Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine mi nga xam ne bi dara desul lu dem wuy ji boroomam la ko woolu mu ñëw wan ko mbooti kër gi jox ko mbooti kër gi jox ko ko war nañ koo bëggit ngir moom ci boppam yàlla bind na ko ku ko seen sopp ko yàlla bind ko moom itam mu nekk xalifa Serigne Babacar yàlla def tam ci moom yiw goo xam ne ak mbaax di jikkoy boppam kon ñeenti war na tax ñu sopp bu dee sunu sëriñ nag moom it di taxawee googu gàmmoo ci ndigalam mag fi bu ñëwee fokk nu wax lii ci moom macha allah tabarakallah macha allah waaw boo gisee rek xalaat jërëjëf euh, Fatou Diouf am na euh, solo mu mel ni bis bi ñu joxe waat euh, date bi samedi bi 8 bi di ñëw la kon incha allah 8 février foofu sa Gajaga Gajaga ah? incha allah ñuy woo ñëpp ca takkusaan ba di ci woo suñu bopp ah fii ngay gis ku woo boppam ci bis eh, sax dama lay ah, invité man maa woo sama bopp ci bis ma de ah, déggoo ma de man maa woo sama bopp ci bis bi kontaan nañ ci loolu ak soxna si <laughs> Suguna kooku man man damay ànd ak moom su may dem te duma fi bàyyi Fatou Diouf ah, Fatou mooy njiite délégation incha allah incha allah ña nga fa ña nga fa dinañu dinañu ñëw ah, rek xayri uh-huh. bi nga xam ni moo ñu gën a boole ak umu xayri umu xayri bi d' accord soxna umu xayri ah, ndeysaan borom max waaw <laughs> ko bu baax waaw moom nee naa ko émission a a garaaw <laughs> beral la lool beneen cant mhm. man petit déj dama mhm. yàkkamti vendredi ndeysaan dama bu ma koy seetaan dama koy seetaan ba mu jeex ci sama course la alhamdulilah bu yeewoo fajar alhamdulilah beneen bi mu ci gën a neex surtout déglu rubrique bu Moustapha. Moustapha Diop. mënuma koy tardé bu ma ko ah. tardé sax foog ma seetaan ko dem dégluwaat ko ndax ah. dafa tege ci yoon. ba pare ah. fullawu te li wax nga xam ni gëm na mhm. amul benn triche bi ci ne. Mhm. Mhm. tabaarakallah yéen ñi nga xam ne di seq di ko defet yàlla yar leen. <laughs> ndax nekk ci télé. dafa am solo. war nga am comportement boo xamante ne nii ku la séen rek. Euh, du mën a roy leneen lu dul comportement bu baax bi muy gis ci yéen. ci waxin wi. ci comportement bi. ak ci yeneen yoo xam ne mi ngi ci seen biir. Fatou Diouf Faye mas naa dégg Ah, benn góor mi ngi toog muy mu doon def euh, euh, royukaay ci euh, Baye Abdou Sëñ Abdoul Ahad kooku di ko xool ba yàgg mu ne xale bi yiw la te teey dafa bari kersa sax ba caméra bi du ko bëgg di xool tabaarakallah ma di ko tooñ naan ko yàllaa ko binde noonu moo ngi yàgg nañ ko bàyyi xel ñu ñaanal leen yàlla na yàlla dolli fi barke amiin amiin a xam li ngeen bëgg na ko góor gi doon ñaan yàlla bay leen ko imaam li ngeen bëgg ci diine ji yéen yal leen ko yàlla bay ndax yéen a jiite diine ji fii ndax su fi diine amul fii Sénégal gis nga faa lii ñu njëkke léegi di ko wax agression yeeg rey nit ñeeg yëpp Uh-huh. ñàkk a yar nit ñi ci diine ñu am al iman donc moo ñu nit ku am iman di nga uh-huh. rusa tiim uh-huh. sa mbokk nit waxuma nag nitu jullit de sa mbokk nit mu yàlla nit di ko rey wala nga koy bund xatal wala nga koy agressé wala nga di ko sàcc wala ko teg yenn métti kon yal nañu yàlla may al iman ba nu mën a soppante bëggante ñëpp fat yu fay tabarakallah gud maara daal xam naa li leen <laughs> ah, waaw waaw gud maara bi moom léegi léegi comprendre nañ ko en ah, mën na mën nañu wax ni comprendre nañ ko ah, ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax waaye di leen jaajëfal surtout mbokku téléspectateurs yi ndax damay faral di wax ni toujours euh, boo toogee ci télé li ngay wax nit gën la koo xam fop te toog jàkkaarloog yow des fois sax nga def ay njuumte yoo xamante ne ñi ngi lay gàgganti fi ñu toog euh, kon xëy na natt bu ñu yàlla teg la ñu toog fii euh, amaana di wax waaye xëy ñoom ñi ñu ëpp xam-xam ñi ngi fi fop fop sax euh, dama koy wax saa su ne ñi ngi toog jàkkaarlook ak ñun moo tax toujours du ñu jug ci di taataan ak di déglu seen i conseil mu nekk lu am solo jërëjëf Gout Mara comprendre nañu léegi Gout bi ma sens bi macha allah Fatou Diouf bi dañuy rek concentré suñu invité yi mhm. Oustaz Sow mhm. euh, di jaajëfal baax euh, Goudmara Serigne Aliou Gadiaga ak waa Gadiaga yëpp ah, di ñaanal rek réussir seen événement bi ngeen war a amal ci samedi 8 février incha allah di jaajëfal rek tamit Fabel mbokk téléspectateurs yi nga xamante ñu doon suivre ci rubrique Royukaay ci mhm. émission Petit Déj di dox da dox daje dox daje incha allah ci beneen ajjuma ci beneen rubrique incha allah jërëjëf euh, Fatou Faye Fatou Diouf Faye yow it ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax euh, ci émission rubrique bi am solo bi ngay def euh, tous les vendredis di la joxaat rendez-vous vendredi prochain incha allah di wax ni euh, joyeux anniversaire à Amdi di technicien fii ci Walf TV ñuy def anticiper rek di ko wax joyeux anniversaire dundal dundal dundal de la part de Serigne Aliou Keita Adjaratou Penda Diallo Gueye et toute l'équipe ñu ngi lay souhaiter joyeux anniversaire à toi alors di nuyu bu baax a baax ak sargal ki nga xamante ni moom mooy Serigne Assane Gueye ñu ngi koy nuyu di ko di ko di ko sargal di ko jox wàccuwaayam di jaar ci moom di nuyu axlu laayeen yëpp ngor wakaam yoofu bàyyiwuñu kenn ñu ngi koy teg ci sa loxo yow Serigne Serigne Assane Gueye Laye ñu ngi koy teg sa loxo di nuyu axlu laayeen yëpp di la ñaan ñaan nag nga ñaanal ñu euh, xam nañ ne sax yaa ngi koy def waaye loo ci yokk rek doyul ñu jël euh, ñu ngi lay ziar bu baax a baax a baax di ziar kilifa diine yi nga xamante ne euh, ñi ngi fii ci Sénégal àdduna wërngal képp bàyyiwuñu macha allah defe naa ne mën nañoo def ci ñoom ay ay ay mission te seen mbaax du daj macha allah loolu moom mooy Sénégal yàlla ñu ko jagleel ñu santee ko ko bu baax a baax a baax a baax na mag ñi jóg wax nañu waxtaan ak ndaw ñi ndax bu ñu indee li fi nekkoon démb rek euh, rek yaakaar naa ni ñàkkuñu référence euh, ñàkkuñu ko macha allah kon xëy na bu ñi war a wax bu ñu waxee rek danañ ñu teg ci yoon te amaana xëy na dañoo dëgër bopp rek waaye sax ñi ngi wax waaye nag bu ñu bu ñu tàyyi nañu continuer di wax rek seen émission euh, petit déj mi ngi noonu comme niñ ko doon defee tous les vendredis jaajëfal ñi nga xamante ne jotoon nañ fi jàll ñëpp gis ngeen ko bokk na ci suñu rubrique bu njëkk di actualité ak Moustapha Diop mu indi saa su nekk ay thèmes yu am solo ñu ciy développé yu soxal askan wi di ci waxtaanee di mu ciy andi it ay waxtaan yu am solo ba foo tourné rek dañ la koy daal di wax saa su nekk dañ lay dañ lay laaj sax Moustapha